salaamaaleykum mbokk internet yi ñu leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér-wér di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan way dawlu suñu borom yërëm leen te xaare leen te àjjanay firdawsi ñu feebar tëdd si hôpital yi si kër yàlla na suñu borom fëgg seen borom te ñu caabi na suñu borom may leen liberté ndax liberté dara daaxu ko fépp fu détenu yi nekk rek ñu ngi leen suñu borom may leen liberté ndax liberté dara daaxu mun ñoo ñëw demul si kenn muy Moussa Dioum ñu ngi koy ñaanal suñu borom yër xaare ko àjjana yàlla na xippee si àjjana firdawsi yàlla nag moom ak néew yi ko fa fekk ñi ko fekk ñëpp di ñaanal mbër yëpp Ramdan Abibullah Zil Balde Junior Papa Yade bépp mbër bi génn àdduna ñu ngi lay ñaanal suñu borom yërëm la xaaree la si àjjana firdawsi te ñu ñëw fii nag seet si dañ ñaan poulet la si Moussa Dioum kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax organ auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu yàlla di julli bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari bu baax di ñaanal sama papa gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal sama yaay di nuyu waa parcelle ñëpp 1 ba 26 surtout waa unité 6 sama waa koñ ak waa Fadja fu ma dëkk Fadja Gént bi 1 Gént bi 2. di nuyuwaat encore samay entraîneur ñoo xam ne dañuy sonn si man guddeeg bëccëg suba ngoon ma leen nuyu bu baax a baax a baax a baax ku si mel ni coach Jean Abdallah coach Bato Sénégal Senghor ñëpp maa leen nuyu di nuyu sama mbokk mbëri yoo xam ne tey jii dama leen wax bis bi ñu bàyyi seen yite yëpp ñëw toog fii pour assister bis bi ak sama gars yi mooy Fodé Pay ñoom nees gars yëpp am maa leen nuyu bu baax di leen ziaral ñoom Modou Yékini waaw di ko ñaanal tamit combat bu mu jublu yàlla defal ko ci jàmm may ko ci ndam du nuyu a ba sama doom a nga jub si combat le dugg côté boobu duggoon nga fa ñaari yoon ndax nga fa ñaari booy tourné jëlaat booy loolu du dara duggoon naa fa ñaari yoon yàlla def na sama combat yi ma fa duggoon ma ñàkk ko instant nag ñuy jëm ci le huit ci kàttanu suñu borom mag booy jub deux yàlla yàlla a ñu defal ñu jàmm mais ñun dam ci combat bi ndax combat bi dañoo ñor préparé nañ ko nag bu baax ak ñu ko war a préparé samay entraîneur jàpp waaw teg nañ ma lu métti instant yi moom combat bi lu ci des jëf moom moo ñu war ndax dafa am lu ñuy xaar intensité yëpp ñoo ñooñu bootu. boo jëf nee boo njëkkee woon si moom doo dugg yëmbal nee na li nga njëkkee si booy yëmbal njëkkee booy pir moo tax nga dugg nee na boo njëkkee woon si moom doo dugg doo dugg yëmbal xam nga démb signature bi mooy wax rek ma bàyyi ko wax bi te man wax waruma jëf moo ma war wallahi wal azim boo jow damaa xamul rek xamuma de te ñu ma bëreel boo jow bëreloo ñoom man combat bi jaaxaluma incha allah rabi si kàttanu suñu borom dama am place si làmb ji boo moo may téye di yàlla nag yàlla suturaama lu wit bi yàlla dafa mën ndam bu seddu guy ci kawam nee na combat bu mu bëree si carrière combat bi moo si gën a yomb ah loolu la wax na ba lu wit dégg nga ko non dégg naa ko muy wax rek man dama koy bàyyi wax bi quoi comme ni ko gars yi def bay jóob dama koy bàyyi wax bi man jëf la essayé ko loolu wax waratuma man Farou Diar wax wax waratuma dama war a def confirmation bu leer ci combat bii ndax surtout en plus suñ saison bi ñu jëm nii ak at bi ñu jëm at bu bees bi te lu lépp lu lépp lu ñu lu ñuy def dafa war a leer quoi ci kàttanu suñu borom te yàlla bëri na sutura incha allah rabi yàlla ñu yàlla defal jàmm daal may ñu kattan ak wér may ko ñëpp nag ñu fi toog ba le huit yàlla suturaal ma ci kaw Boy Diop. ndax Boy Diop nee na combat bii nii day teggi bëre teg na le day samp ak yow jaaga xeex <laughs> nee na yow doo xeex français nga. non booy jëm maa ngi dégg dem muy commentaire naan Farba du xeex Farba Diar du yaa ma gën a xam dal jaamu nii waaye combat bi xam ku senaan samay combat ban Farba Diar. wallahi wa kitaabi mbër bu suba duma. moo tax la fas duma leen. ah ba le huit si kàttanu yàlla moom loolu wax na fexe ñëw rek dëggal boppam moom moom mooy dégg bu moom loolu wax boo jóob dëgg le huit si kàttanu yàlla ñëwul dëggal sa bopp rek si kàttanu suñu borom boo ko defee bu dëggalee boppam. non laam yi du yàgg wallaay yàgg nee na moom yebul ay supporteram bay bëre ak yow deux minutes. léegi kan moo yeb ay supporteram. Ah, moom yebul ay. supporteram kan moo yeb ay supporteram kan moo yeb ay supporteram surtout man mii combat bi dafa am. voilà xale ah, la waaw dégg ngeen ko démb lu muy wax. ne man far bu jar. Fara ji nga ñëw fi. waaw ma may. ba ba ba suusi si kàttanu suñu borom moom na taxaw rek na taxaw rek bu taxawee ko lamb ji du yàgg damaa gëm lu may wax te combat musul am far bu jar wala ginnaaw non non jamais dama koy jaante moom ba mu saf sàpp Boy Diop nag mooy doog am combat xam nga gars yi ñooy presse bi ak TikTok yi gars yi ñooy dégg Boy Diop Boy Diop far bu jar Boy Diop jox nañ ko lépp nag ndax dëgg la si dynamique yu bu nekk la daanagul mm-hmm. te loolu moo tax gars yi jox ko lépp waaye ko xam far bu jar nga xool samay performance xool samay xool fu ma jaar wallaahi xool asim Boy Diop jaaru fa. nee na fi daan armée nee xool nee na dafa am fu mu teg bëtam. waa loolu moo armée la te dëgg la xëy na moom xelam moo toll foofu rek waaye far bu jar la am de te gëm naa ne wallaahi xool asim Boy Diop wallaahi mooy doog am combat boo jëm deux mooy boo jëm bi soog am lu ma koy lu ma lu noonu dafa leer ci man ba le huit ci kàttanu suñu borom man façon mbër bu nekk jëflante na moom kon boo jëm leen loo xam ne tey jii dinaa ko bàyyi xel ci combat bi combat bi lu ma moom laay jël ci suñu borom ndax waaye desis waaye desis hmm. non dama leen yorool ay bor te moo war leen ko fay gars yi xam nañu bu baax sama gars yi barki alxuraanu karim fii sama place ci làmb billahi wallahi wal kitaabi faru jar fii du place am ci nga gëm ko mu deñ te incha allah rabi le huit combat bi fi laa ko waxee nañ ñaan yàlla gudd fan ak wér. nee na moom combat bi mbayaar yee ko yónni mbayaar ñoo ko yónni ci combat bi diggante ak moom. <laughs> na instant yii nii a xam ndax commentaire yi bëri na trop wax baa ñu bëri boo jóob far bu jar boo jóob far bu jar ba yàlla def tey yàlla may nañu kattan combat bi préparé nañ ko li ñu ko war a préparé samay entraîneur teg nañ ma lu métti maa leen di sant bu baax samay entraîneur di leen gërëm aw ma seen fay barki alxuraan ñun tamit amuñu seen fay ndax dañuy sonn si ñun lépp lu si war incha allah rabi combat bi ñoo ngi ko siy def samay staff ñoo may jàppale si combat bi encore une fois du ma leen bàyyi du ma taay wax ñoom laa am man ñoom ñoo tax may sonn tey jii Far Bou Diar réussir day mel ni ñoom ñoo réussir waa parcelle yëpp comprend nga di ñaan yàlla nag yàlla defal ñu jàmm rek incha si kattan suñu borom ba le dimbalu ñu kattanal ñu may ñu ndam ci ah, ko ne loolu moo tax mu gersu may la loxo. waaw def soog comprendre nga non may ma loxo sax ah, boo jóob mënu ma may loxo bi nga nekk dafa boo jóob mënu ma may loxo si kàttanu yàlla billaay walaay boo jóob mënu ma may loxo barki alxuraanu karim walaay wal azim gars ne bu baax lu wax boo jóob mënu ma may loxo billaay walaay loolu dafa leer e xam ngeen far bu jar bu baax d dootee nag ndi la ku nekk rek yaa ma nga xam day nekk si ay tolof waaye man ak lépp lu mu mënta nekk si kàttanu suñu borom boo jóob may ma loxo hmm. boo jóob xam la ma tax mu jël far bu jar doonte turbañ fii yàlla baax na lu si des nag ñu ñoo koy wane confirmation bu leer comprendre nga lu lu liggéey ñu wane ko te gëm naa ne si kàttanu suñu borom le huit si kàttanu yàlla damay jël lu ma moom. le huit incha allahu rabi lu ma moom man Farba Diatta dama koy jël si. wàllu mobilisation bi foofu toll. waaw mobilisation bi. waaw ah, loolu dafa leer sama gars yi ah dafa leer mobilisation bi yaa ma gën a xam. gars yi ñu ngi koy pare daal indices yëpp. parcelles yëpp ñu ngi koy pare waa Fouta PA ñoo ñoo di ma dégg. waa Mbar bi waa Milan comprendre nga gars yëpp ñu ngi koy pare. waaye woo ñëpp waa Fadja ñëpp gars yi ñooy pare si wàllu mobilisation bi comprendre nga combat moom xoolal bëgg naa ne gars yi jàpp si bu baax a baax a baax ma doole si combat bi ndax combat bi waruñu si sonn dañu yëpp may ko booy booy dañuy bëgg dem di supporter jàppale jàppale seen bët faru jar waaye xoolal day métti benn naa ne si kàttanu yàlla combat bi dina lépp lépp dina jaar yoon incha allah rabi ñëpp jàppale seen doomu ndey faru jar mu dem def lu leer jëli jëli luñu moom le 8 janvier côté mobilisation bu bul dara gars ñu koy pare bu baax a baax a baax a baax mobilisation lay xaar ci yéen. waaw Fallou Ndiaye xam nga Fallou Ndiaye daanaka boo xoolee ñun ñëpp moo ñu génnee si kàttanu yàlla ñun ñëpp ñoo ñu génnee te dafa am lu ñuy lu ñu ko war a wan le huit incha allah rabi te man tiituma dara si côté mobilisation ndax gars yi ngi nii sama ginnaaw suñu mafia bi dara du yomb barki yonent bi waaw loolu dafa leer. looy wax sama mbokk séeréer. waaw balaa maa wax sama balaa may sama mbokk séeréer yi yaa ma gën a xam dinaa sant ñoo xam ne tey jii dañuy sonn si ma ret guddeeg bëccëg du ma ko tayee di ko wax ba si Baye Mor a ngi nii sama doom yaay maa ngi koy gërëm bu baax ak yàlla doole moo ngi nee toog maa ngi koy ñaanal jàmm Paalin tamit gis nga ñooy noonu ñoom ñëpp waaw ñoom Amet ñoom Cheikh Tidiane Gaye bàyyi ma kenn ah gën a xam ñoom léyti éto fii sama sama grand bu baax la nag barki Serigne Saloum Mbacké ko sonn si man la moo ngi noonu moo di ki ne moom dama koy ñaanal yàlla defal ko ndam bu seddu guy ibuloo maa ngi koy bëggee léyti maa jaar bu wér di la ñaanal jàmm waaw ñoom verati yi gars kenn Elage yaa ma gën a xam bébé Cheikh ñëpp waaw ñoom bébé far wu jaar ñoom ibuloo bàyyi ba kenn waaw di nuyu tamit waa Fadia fu ma dëkk waa Kër Massar maa leen jaar ñoom Alioune Badara ñoom ñëpp maa leen di jaaraat bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu tamit sama waa kër waaw leen sant di sant samay papa wu sama papa dafa sonn gis nga ko dafa sonn si làmb te maa ko war a dimbali dama am yaakaar wallaahi wal azim sama papa mii dafa sonn si làmb te maa far wu jaar maa ko a dimbali moo tax non wax baaxul si waaw nañ ñaan yàlla gudd fan rek a wér le huit incha allah rabi di nga xam ne dama am place si ji wóor na Serigne Saloum Mbacké di wax gars yi nag nañ gën a préparé yéen tamit ñoo leen sant bu baax la presse di leen gërëm ndax tey jii li ngeen def dafa rafet kon mënul bu dul woon yéen ñu duñ dem comme lu ko gars yi di waxee rek tey jii ñun fépp fu ñu àgg si làmb rek yéen nañu foofa àggale kon ñoo leen ñaanal bu baax yàlla dooleel leen kàttan na leen comprendre nga ak lépp fi ngeen jëm rek yàlla jëmale leen fa ci kàttanu suñu borom ndax ma dem kontaan naa trop waaw gars yi taxaw nañ ma trop trop trop lu si des moom ci man la quoi te incha allah rabi dinaa ñëw confirmation def lu leer pour le 8 janvier incha allah rabi waaw di woo sama waa dëkk waa Jilaas o fogole séeréer fop mi simna nuun xooya nuun girma nuun o ɓiy séeréer fum gen Jilaas mu xooya Jilaas fop xajum o kiin i comme Jilaas genum de i kam jilas o ɓiy jilas refum combane i combane kam bug dal o sereer fop fat ngar nu ndam taam jilas Diofiyoy Fimela Simal Yayem Djilor mar fa fokof mar looc arrondissement fe Fimela fop fat ngar nu ndam taam min fo Boy Diop 2 inchallah rabi joyin fop i Moustapha in fat ngar nu ndam taam a paax mbanga in bàyyi mo fenn leyna ke leya nene caate ke est-ce ngar jour naaga inchallah xar taxu xar taxu ngar ke waaga Ah, caate ke ngaranga est ce que ke took tribune muk da adna ɓaali kaaga o bi de caate ke mi seereer refum i xaye faax daal inchallah rabbi o ɓiino seereer a miñ na njom to wiin andiran na kene yaam i ɗetagaga ɓiino seereer mayu ka andoona yee ka mbudeegu na njom ɓuuɓ to bo ndik i ngay rek na njom ɓuuɓ a ah, ka furwa sax na njom ɓuuɓ de de toute façon daal kan ref na jom door fe suivre quoi inchallah rabbi comme ba ne passé na moom xay bugu fu doona fiya jom buub ne quoi inchallah rabbi ah, i bo ma afrique ah. inchallah rabbi bo jag waaga jag meke drapeau ke quoi inchallah rabbi o fela na roog kontaan naa trop di remercier gars yëpp di samay entraîneur samay yaa ma a xam staff yi encore une fois fan si bi di woo organe bu faru jar maa ngi koy bëggee waat naa ko laay siin sama doom yaay maa ngi koy bu baax di nuyu Adama Baye Matar Xaadim Fall ne ko réel maa leen ziaraat bu baax a baax a baax Bamba yaa salaam mooy Baye yaa salaam moo ni ñuy toog maa ngi bu baax waa premier garage yëpp maa leen di ziar waa Fouda PA combat bi maa leen di woo ci combat bi mobilisation bi Cheikh Tidiane soxla ko laa ko teg hélas bébé Cheikh combat bi Balzo Ferretti yaay président fan si club Jar Eumeu Thiam sama doom yaay maa ngi koy ziaraat bu baax ñoom Boga ñoom Toroxal gaa yëpp bàyyi ma kenn ñoom xam sa Thiam ñëpp maa leen woo ci combat bi jàpp ci. et office sa combat jàpp ci bu baax a baax a baax waaw yaa ma a xam boo jël sama kàddu bu mujj mooy na xaaral incha allah lu moom moom maa koy ñëw jël si si kàttanu yàlla bu la wit mu incha allah wit tuun la jàppee boo jóob ñu jëm la le huit journée Fallou Ndiaye production grand combat nekk diggante Bulldozer Thiatou Yoff ñu gis espoir yi nekk Ada Boy Baol mu ngi si digganteem ak Arobase Farbou Diar digganteem ak Boy Diop Pape Dianka xale yi si nekk bari na trop trop di bëggewaat ñëpp di ziaraat ñëpp yow gars la Xalilulaay doxal ñu dem. raag la. Boy Diop ñu rey